waaw man de vidéo bi sax li ma ci njëkk a jàngati mooy kilifa yi fi nekkoon démb man yàgg naa di wax ne seen position daan nañ ko jël mbir mën naa am nag tax duñ ca xam dara lañ xamul dara nag wax dëgg yàlla ku xamul xamoo ndax démb dafa nekkoon jamono bu sori mooy jamono boo xam ne mbir dana xew lu yàgg-yàgg kenn du ko xam rajo yi bëri bëriwutoon télé yi bëriwutoon amul bëriwutoon internet bi amewutoon comme nii waaye lañ daan yëg moom man xam naa xam nga wér naa dañ ci jël seeni responsabilité ca lañ ci war a jël seeni responsabilité kon vidéo bi damaa gis ne da koy dëggal formalul nee na doo am dara nee na Cheikh Tidiane laa bëgg nga génne ko tey nee na ndax kenn la ci lislaam bu dee tey nag daa doon jenn jamono xam nga nit ñi il faut ñu bàyyi xel ne tey ak démb lu ñu bokkul tey jenn jamono la bi max naa nekk gi nekk jenn jamono moo tax yaa ngi ci bitim réew Baye Mar amaana ma ngi ca Mauritanie sëñ Fallou Gueye mën naa moom itam ma ngi ca Mauritanie kee ma ngi ca ma Espagne kee nekk ca Italie bàyyi Cheikh nekk ca France kenn ku nekk daal fa nga nekk waaye teewul ñu ñi ñëpp daje noo nañ ci benn ëtt boo ko dee xool ba mel ni ñu ñi ñëpp ñoo ngi toog ci benn nekk di waxtaan loolu yi nag moo sabab lu xew foofu léegi yow man nga ñu ko wax lu xew fee kee mën na ko wax li xew càdd kee mën na ko wax li xew li xew li xew looloo sabab tey li xam li am lu ciy umpi moom daa munta bëri dangay yéeg ne kon détournement politique yi mën nañoo sukkandiku ci vidéo bi ne détournement politique yi ci daan wax maanaam dét maanaam ñi ñuy tëj ko sa laa bëgg a wax maanaam kilifa yi dañ doon wax moo tax du caaginu bi muy wax ak Senghor ba tey ak Cheikh Tidiane du meenum Cheikh Tidiane ak lan tëjoon waaye mbir mu nekk day am ñu gën a siiw ñoo xam ne ñoom la ñëpp di xam am na ñoo xam ne ñu duñ leen xam ci gàttal waaye da ngay yëg taxawaay bi mu taxaw bi ñu yéegi bi ñu tëjee Cheikh Tidiane da ngay gis ne dafa déplacé wu jóge fii wóoluwul Senghor dafa dem ba Dakar wax ko ne ko dama laa waxoon ne war maa la lislaam loolu it ci nga yéege ne su ruuroon lislaam ji dana dal ci kawam wax naa la ne ko soo war maalee lislaam nag loo fi bëgg da ko am te Seex Tijaan mii day kenn ci lislaam kon da nga ko daal di tijji lu xañ du añ du réer lu ma fi mën a xaar waaw ndax kon nag bu ndikkee ba ci jamono jii Macky Sall départ ci dëkk Touba bu tedd bii dem sa yonte bi alayhi salaatu wasalaam dikkaat fekkaat fi kilifa yi diine yi ci Sénégal yi ni ñuy tuddee kilifa kenn waxu ca dara ndax lii wuute naag yaakaar naa lii wuute naag mu defoon ci kanam waaw ah, deuxièmement it mooy boo seetloo bi mu tëjee bi ñu reyee Moustapha Lo ci ni mu waxee Sëñ Fàllu ci boppam wax na si ngor ne ko Moustapha Lo lee Moustapha Lo lee Moustapha moomee nga tëj nga rey te boo xoolee Moustapha Lo daanaka mel nañu benn simple taalibe la woon waaye bakkanu doomu aadama moo moo rëy moo diis ndax yàlla ne ku ci rey benn dafa mel ne da ngaa rey yëpp mu ne ko Moustapha Lo moomee nga rey wax naa la bul rayati soo dee rey nag danañ la rey ka dàq rey ka ñee doon reyal yonte bi sax dañ leen rey kon sàkkantuma laa ku nekk ci réew mi président ak réew mi li fi nekk ci lu ñu rey ci ay nit ñun ñu xam ko yaakaaruma ne kenn umpale ko kilifa yi ko naqatluwuñ ko kaasuñu ko waxuñu ko ba pare ne ci cell ñu ne kilifa yi waruñoo wax ah kilifa yi fi nekkoon démb doon leen benn bakkan dong lañu rey te ba mu ko yëgee daa taxaw ñu ne gisuñu ay vidéo gisuñu bu mu tax mukk ñu yaakaar ne kilifa yi fi nekkoon démb dañoo wax déedéet kilifa yi dañ doon wax daa daanañu wax mais internet bi ak jamono yi léegi ñoo bokkutoon te te boo xoolee yonent bi alayhi salaatu wasalaam boo xoolee gannaaw ba mu fi jógee mën naa wax ne gannaawam daa xawoon a am ak lëj ndax waa ansaar ñoom dañoo jàppoon ne amir bi ci ñoom la war a dellu maanaam ñoo fi war a wuutu yonent bi salaatu salaam muhaajiroon yi it loolu moo nekkoon seen gis-gis ñeneen ñi gis ne xilaafa bi dafa war a dellu ci Seydina Ali karamallah ñeneen ñi gis ne xilaafa gi dafa war a dellu ci Abi Xubayda bun Jaraax ñeneen ñi gis ne déedéet li gën a lënk moo dañoo war a delloo mbir mi nag ca Abu Bikrin ca la ca la mujj mbir mu mujj dellu moo fu njëkk a wuutu yonent bi alayhi salaatu wasalaam Abu Bikrin mii yaakaar naa ne yëggul ci xilaafa gi te dañ koo mujj faat te loolu mooy li wér Abu Bakrin mi ngi yaakaar naa mi tuddoon Abdullah lañ doon wax wala Abdul Kahf ba njëkk muy njëkk lislaam di ñëw yëggul ci xilaafa gi dañ ko mujj faat te kenn ku ne xamoon jàmbaarte gi mu nekkoon amara ju topp amar bu mu juumul Abu Luhluh waxtu moo ko almalhoon moo ko moo ko moo ko faat moom itam doonoon maanaam doonoon sang kii yu xaleb kii nu moo xiira moo ko li ko mujj faat Ousmane ñetti trop Ousmane tamit mi ngi faat abul fi ne mo Ousmane gis nga ko dañ koo faat moom itam boo xoolee après moom itam yokku fi ay du ay yàgg na fee yàgg ndax war na faa def lu mat ay douze ans Seydina Ali Koramada daal di ñëw moom itam war fee def luy toll ci juróom-benn at moom itam Abdourahmane moo ko faat maanaam maanaam yooyu yooyu ba mu jeex léegi nag kon ku mel ne que président Macky Sall mii saa ci gàttal kenn xamunum toll ay information yi tax génne moo jënd ay armes luy toll ci quarante ñi fi nekk nanguwuñ cee wax wala nangam wala nangam moo tax président Macky Sall lu mel ni moom ak mujjëm bu mu ci bett kenn wax dëgg yàlla waaye daal wax dëgg yàlla vidéo bi moom boo gisee dang boo gisee vidéo bi suñu fàll bi da xam ne kilifay démb yi kilifay diine yi fi nekkoon démb daa dañ jël seen responsable ci ku nar a diine ji te dégg nga li mu ko wax diine ji warmaal ko te dégg nga fi vidéo bàyyi ñaas tamit bu mu doon wax ak ki nga xam ne mooy Senghor ci ne ko lee amoon bu mu amatee bis bu amatee da ko gis moo tax waaye kilifa fi nekk moom wax dëgg yàlla man moom position bii moom bi ñu no bi ñu taxawee man moom munu ci ànd mukk mukk mukk mukk mukk mukk mukk lu dul yow mal laa ci ànd bu dee am lu ma ci mën a ànd yow mal doo ngay tax ma ma ci ànd mais à lu dul yow moom fii ba yow mal moom seen position bi munu maa fi doon ku dul koy ñaaw wax dëgg yàlla